la ilaha illallah la aleykum wa rahmatullahi yi ñoo ngi leen nuy bu baax te di leen siyaar di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi mun Mountakha Mbacké di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér mu yàgg fi loolu te wér ba yéene yoon liggéey Serigne Touba mu defee ko nu mu ko bëggee di ci teg jëwriñam ja nag Serigne Amdi Fall Moodu Mbenda di ko ñaanal moom it gudd fan gu ànd ak wér jël nu yooyu yëpp nag teg ko ci eh, loxob sëriñ Cheikh Ndigal Fall mi nga xëy mooy sunu jëwrin ci kër sëriñ Cheikh Fall Baye góor di ko ñaanal saa borom defal ko gudd fan gu ànd ak wér lool ba lépp lu mu yéenee liggéeyal way juróom ma yéene ko liggéeyal maamam ja yéene ko liggéeyal yoonu murit saa borom defal ko kartan defal ko xéewal defal ko jàmm ba mu ba mu defee ko na ko bëggee eh, di dellu nag jël nuyoo bi di ko teg ci doomam ji ne fii ci kër yi ñu ko wax sëriñ Cheikh Ndigal Moussa Fatikala di ko ñaanal lool gudd fan gu ànd ak wér ndax nun de ba ne waajuram lan àndaloon waaye manqué wul dara ci waajuram ma ba mu ñëwee daa jël waajuram fa mu tegoon liggéey ba fa la ko jëlee jëm kaw yokk ko nag ba kenn ku ne teg sa bët kon noo ngi ñaanal sëriñ Cheikh Ndigal Moustapha Sa borom guddal fanam wéral ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Cheikh Fall Baye góor yéene koo liggéeyal waajuram yi sëriñ Cheikh Ndigal Sa borom àggale ko ñoo ngi koy sant bu baax mbooleem taalibe yi ak soppe yi am nañu cofeel ci moom lool di ñaan daal lépp loo xam ne yéene na ko bëgg na ko yàlla nag ko saa borom ah di sant bokki taalibe bi nga xëy danoo ànd bi fi sëñ bi jugee ba léegi sëñ Moussa ànd ak sëñ Cheikh Ndigal kalam yi muy tuut tànk tey delluwun ginnaaw areeruñu saa su ne rek ñu ngi ci bëggu sëriñ bi ñaan saa borom defal leen kattan wéral leen yokk seen i xéewal lool ba kenn ku ne loo man ren bu dee nee nga mën lu kopp wax dëgg borom Pastef lañu borom jàmbaar ay jàmbaar lañu ñu am yéene lañ ci sëriñ bi kon nag dañuy ñaan yàlla mi nga xëy dara taw ko di ñaan ci barke maam Cheikh ak weeru koor bi ñu nekk yal leen saa borom jàppandal addiye te jox leen xolub murit boo xam ni su waxtu yi jotee tee su nañu mën koo jëf ñu ngi sant boolem taalibe ñu fi teew soppi sëriñ bi ñëpp ñu ngi sant rakki sëriñ bi di sant euh, soxna yi sëriñ bi di sant mboolem njabootu sëriñ bi bàyyiwuñ kenn daa donnu taalube juddi ci taalube ndax kuñ ni kuy sa maam Cheikh kuy sa maama sëñ mun Moustapha Fall maamam ji di sëñ Cheikh Fall baayub góor di sëñ Moustapha kon bu ndugal juddee foofu rek la mu waral ku ko ku ko dégg rek war ngaa xam ni kii jëfkat war la doon mën a Pastef la war doon way juróom doon doonoon si Moustapha Fati Kala doonoon kenn ci kër sëñ Cheikh Fall Baye góor doonoon ko fonkoon lool sëñ Cheikh ndigal mii defoon ko way jur man de daana ma wax ni ma sama way jur moo ma ni sama lal bii boo saa yoo fi noppee gis ko fekk mu toog jàppal ni man mii la te yàgg na maa wax ni ma sëñ Cheikh Roqe mii la defuma ko man way jur defuma ko ab sëriñ way jur laa ko def bët yi ma daan xool sëñ Cheikh Fall Baye góor rek loolu laa koy xool sëñ Cheikh Ndigal kalam it foofee mu tegoon euh, foofe baayam tegoon sëñ Cheikh Ndigal foofee rek la teg sëñ Cheikh Ndigal da koo def muy kilifaam def ko muy baayam def ko dib sëriñam loolu daal mën nañ ko cee sànni di ñaan saa borom daal guddal ko fanaan lool yàggal ko sëriñ bi ndax am na yéene lool liggéeyal sëñ Cheikh Ndigal waaw lépp loo xam ne si ne jëf na ko nii gen la mu yéene woon ëpp na lii fuuf yéeneem daal lu kawe la lu rëy loolu la yàlla na ko saa borom defal lépp loo xam ne bëgg na ko te yéene ko mànd koog mboolem taalibe te bokk jëf ko kon daal noo ngi sant yéen waa Touba TV ñi fi teew ak group yi ngeen ànd Lamp Fall TV ak euh, ak kadam Académie TV ñoo ngi leen di sant di sant ñëpp rek mboolem télévision yi fi teew ak Daaru Muxti TV ñoo ngi leen di siyaare di leen jëfal seen teewaay fii sëriñ bi sant na leen kontaan na lool ci teewaay bi. Euh, kër gi ngeen ñëw tey dafa doon kërug ngërëm doon kërug Pastef doon kërug ñu am jom. te ñu seq kook ay ngor ay gor ay gor yu gore tamit nekk ci biir naa euh, euh, bu ñu bu ñu bu ñu jógee ci cant yooyu rek ñuy gën a sant suñu jëwriñ yi nga xamante ne nii ñoom la ñu bokkal kër gi e, di jëwriñ yi nga xamante ni ñoom sëñ Moustapha Bey sëriñ Daam euh, sëñ ma sekk ñoom ñii maam Baye Saliou Fall ak ñoom sëñ Modou Fall xam naa damaa dugg ci lim dafa mel ni damay bëgg juum waaye bu ma tuddoon Moustapha rek daanaka day yóbbaale ñëpp waaye ñoom it dañ leen amal ak cant ndax ñun dañoo doon dañoo ànd ak ñoom ci liggéey bi nekk ci daara tarbiya yi ñoom ñu nekk ci biir kër gi ñu bokk ak ñoom liggéey bi mu rafet lool bëgg si fii ndax ak njaal benn kët dafa am solo ñoom ñi seenu njaal benn kët dafa rafet kon dafa mel ni tey bii tey jii bisub tey jii dañuy jàpp ne ñoom bisub ngërëm lu ci ñoom kon dañ leen ciy sant bu baax a baax te di leen gërëm ndax liy jóge ci xol ci xol rek lay delluwaat xol yi dafa fees soxna si mu mel nag kon maanaam dañuy gën a doole sant rek Euh, fi ñu war na tàmbalee lañ toll ni tey di sant euh, Serigne taxa Mbacké moom Serigne Touba Khadimu Rasoul di ca dolli taftal jëwriñam ja Serigne Amdi Mbudu Mbenda di ñëw di gën a dolli sant Serigne Cheikh Ndigal Fall mii fii xalifa Serigne Cheikh Fall Baye Góor tey ak i rakam ah, di di di di bàyyi ci Serigne Cheikh Ndigal Kala ah, di sëriñam doonit it euh, moom ñu ngi koy ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam Euh, bu ñu fi jogee gën a dolle sant tamit suñu suñu sëriñ suñu jëwrin sëriñ Cheikh Ndigal Kala bu ñu ko sante sant ay rakam ak ay juram ay baayam ak i yaayam ñu ni bokkal kër gi di leen jaajëfal bu baax a baax ndax soxna si ni ma leen ni euh, kër gi këru ngërëm la rek foofu laay dolli pas euh, dollee dollee toftal ndax loo gis lu nekk rek day am pas-pas pas-pas nag am na solo waaye bu dëgër bi da ciy gën a am solo lii lépp nag pas-pas bu dëgër la ndax euh, euh, sëriñ bi day mën na ni noppal na taalibe yi ndax euh, li tax mu noppal taalibe yi mooy maanaam maanaam maanaam maanaam soppeem yi nga xamante ne nii dañoo teew kër gi boo xoolee soppe yi ñoo ëpp doole ñoo fi ëpp doole taalibe yi la ñuy wax ndax taalibe yi na nañu néeg lépp ndax soppe yi seenu bëgg moom la kenn xàmmeewul ci ñoom ak seen wasila kon dañ leen di gën doole sant bu baax a baax ñoom it di leen jaajëfal waaw Serigne Cheikh Ndigal moom mën nañ laa wax ci moom ci li ñu xam waaye wax si moom dafa jafe ndax euh, Serigne Cheikh Ndigal maanaam maanaam dafa bari ay ngërëm jënd la ko mën a waxee ñun dañoo jàpp dañ koo gis daf doon boo xamante ni ku bari ngërëm la ndax mën nañ ni njabootu Sëñ Tuubaa yëpp gërëm nañ ko ndax Sëñ Cheikh Ndigal fépp lu baax fu lu baax nekk rek ma ngi fay dugal loxoom kon moom dafa jàpp ni maanaam njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp wasilaam lañ ba pare tamit mu mu mu sukkandiku ci Daaru Xuddoos bokk ci waa kër sëriñ Moudou Moussa Mbacke tey sëñ Moustapha Ndiagne doon jëwriñam waaye it euh, sëñ Cheikh Ndigal ñu di la xamal ne la ni euh, euh, day sëriñ bu day sëriñub tarbiya day jàmbaar day day sëriñub tarbiya doon jàmbaari lislaam doon doon doon doon jàmbaari murit yoonu murit ndax sëriñ Cheikh Ndigal boo xoolee xidma rek ci nga koy gis waaye lu lu xidma rek mën nga ni sëriñ Cheikh Ndigal bokkul bokkul ci foofu ci lu nit di jàng rek jàng na ko ba xam ko waaye eh, sëñ Cheikh Ndigal fi nga gis rek moom mooy xidma xidma googu nag ah, ci la ñuy sant yàlla suñu borom ba di cee def eh, di ko def seetu moom ba mu wàcc suñu biir kër gii nii tey suñu sëriñ bii tey di ndigal kala foofu rek lañ ko gis si moom ci xidma rek la la nekk di ca dox ndax mboolem xel yu baax yëpp buñ dajee bu buñ ñëwee foofu rek la ñuy la ñuy la ñuy yóbbuwaat ci xidma rek la ñuy yóbbuwaat muy liggéey jaamu yàlla mboolem li muy def nii mboolem li muy def nii ñun ñoo ko ci sigal waaye moom bëggu ci sax ku gërëm bëggu sax ku ci wax kon moom dañ koy gën a dollee sant yàlla bu baax te di ko ñaanal bu baax a baax a baax yal na suñu borom yàlla euh, yokku fanam yal na yàlla yokku ngóoraam ak pasteefam sëriñ Cheikh Ndigal euh, yal na yàlla gën a dëgëral taxawaayam moom amuñu payam soxna si xol yi moo fees te liñ bëgg wax lépp mënuñu ko kon dañu yemal foofu kàddu yi rek. kër gi de ñu bari liñ ci wax rek ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu àq ñëpp tey balu àq ñëpp tey ñaan suñu borom subhanahu wa defal ñu ay tawfeex yu yaatu yaatu di jaajëfal sa mbokk yi nga àndal waaye di jaajëfal it mbokk yi daayira bi waaye la mbokk yi jëwriñ yi di la wax ñi kër gi moom kërug Baay Faal la rek yëfi Baay Faal rek a fi am ci la ñuy xëy ci la ñuy gont saa bu ñu xëyat ci la ñu nekk mu di ak Baay Faal waaye bëgg na ci Baay Faal rek muy kër goo xam ni kër Sëñ Cheikh Fall la kër Sëñ Cheikh na ku ko wax xam ni ak Baay bu fa sosoowul it eh, naa am lu fa jóge muy cib liggéey ci li Maajo Baad wax léegi muy xitma eh, ñiy raw ñëpp li ñu rawee ndax Cheikh Ibra daan wax eh, dab nda dab ndab dabee ndab moo tax suñu Cheikh bi ñuy foofu la teg tànkam moom di xitma lépp lu yaakaar ne daal lu baax la ti kër Sëñ Tuubaa dana ko jëlee kër Cheikh Ibra yóbbu kër Sëñ Tuubaa ci loolu la nekkit ci loolu tamit ci la saxal taalibe ba ci ndigal Moustapha mi it jàpp naa ni ci loolu la nekkit ndax ci moom lay xool moo tax mu jàpp ni kër gi moom ak Baye Fall rek fi nekk bu ko defee lii moom muy liggéey Cheikh Ibra bi bi nga xamante ni moom la commencé woon commencé ko ci fukki ndab jëlee ko kër sëñ këram jëme kër sëñ muy weeru koor muy liggéeyu Cheikh bi gën a mag moo tax lu ci waay def deesu ko xeeb waaye deesu naw dara moo tax sëriñ bi saabu at mi dikkee rek mu yokk ba ñu yëg ko mbooloo mi yokk ba yëg ko waaye di ñaanal taalibeet ñoom it jëf ñoom it yokk ba yëkk ndax dañuy wax ni lu sëriñ bi defit taalibe yi rek koy def sëriñ bi moom taalibe yi la am taalibe yi sëriñ bi lañ ñu am kon di ñaanal yàgg ak yokk wér ak le def ci poos yi dara bañ mën a ñuqi di defal sëñ bi kon loolu mooy liggéey bi ak Baye Fall moom ñuqeek ñàq dong la leneen nekk fi ñoom jàng nañ ba xam li war a xam waaye dañu ko fa ñukk liggéeyal Sëriñ waa doy leen sëkk ñu ciy jëf képp lay kartan kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sëriñ bi liggéey bi mu sumb di liggéey Serigne waa bi nga xam te moom la jëm ci kër Cheikh kër ko jëwriñ bi Serigne Cheikh Ndigal mu Serigne Cheikh Ndigal mu Serigne Cheikh Fall yàlla yokk ko te yàlla yeggale liggéey bi barkib Serigne bi di ñaanal taalibe yëpp jàmm bi Serigne bi yal na yàlla dolli yal na yàlla yokk bi jaay sey fa jóot ta Serigne si ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax rakkam yi ñëw nañ léegi ba jébbale ko muy rakkam yi nga xam te ne ay ay astaghfirullah mag ay rakk yu eh, di ay soxna wala ay mag yi ay soxna ñëw nañ ba siyaare ko ndax gis nañ muy jëf te ñoom it bëgg nañ ci dugal seen loxo ndax sëriñ bi day wax ni lu baax lu ne dee ci dugal sa lox luy dem yóbbaale la ngir bu yegg amee ñëpp mën a yegg kon loolu it daa mel ni ñëpp teg nañ seen bët ba kenn ku ne yaa ngi jéem a dugal sa lox ci sa jëfi sëriñ bi ngir mu jëmale ko ci kër sëriñ Tuubaa gi nga xamante ni lu baax lépp fa la jëm kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm te ko sàkku jeen te di leen jaajëfal yaatu kon loolu moo doon kàddu su fekkee amoo yeneen laaj yoo xamante ni koy laaj dénk xanaa fi mu teg tànkam rek muñ koo teggi muy teg ko ci taalibe teg ko ci yoon wi nga xamante ni moom la euh, ndigal mi nga xamante ni muy sëñ Cheikh Ndigal bi waajuram mu fas yéene di xool ci kawam xool ci moom fu mu teggi tànkam rek mu bëgg ko faa teg xaj na du yomb waaye mu jéem ko faa teg rek ndax dañuy wax ni boo jaaree ci yoon xañ na mën ngaa bañ a yegg waaye man ngaa bañ a réer comme mi ñu ci yoon yi dañ koy ñaanal yoon yu mu jaar rek mu bañ a teggi tànkam bu yeggutit mën nañu bañ a réer jërëjëf jë wax dëgg yàlla liñ ci sànni du bari ndax ñu fi jaar wax nañ li li wa li ma wax wax nañ ko samay kàddu moom fi muy jëm rek mooy sant taalibe yi ak magi taalibe yi ak sant kër gi te kenn ku ne xam ne ñu bokk teew fii am na jamono yoo xam ne si maanaam lii fi agsi fii daanaka moo doon suñu bëgg-bëgg daanaka jamono yi toll mën naa ne ña nga fa toll kon dañuy santaat yàlla suñu borom tabaraka taala mi ngi doolee kàtt nañu sàmm nu ban mën agsi fii ah ndax sunu waaju waajuróom kii di ndigal kala waajuróom fi nekkoon suñu ba faat kala maanaam ku ko xamul it dégg nga aw ci pastéefam ci jëf ci kii di magam sëñ Ndigal Fall mi nga xam ne si bàyyi góor moo ko ne woon boo ma gisatul ci sama taaw mooy bu góor da koo wane jëfe ko ci xel koom mboolem ndaje mboolem liggéey yu am jaajëf rek sëñ sëñ Faafat Kala moo doon jëruñe moo doon jàmbaat ja ba lakk ngërëm ah Baye nag lii mbiram wiiri wiiri fu mën a wiiri ak fu ak mën a jóg ak fu mën a jaar li li ko am eh, importance la mooy ngërëm fexe balaa làkk ngërëm ngërëm nag moom il faut nga jëf suñu Moussa Fall Fadi Kala neewoon na ma Moodu mën a mën a ko Fall mën ma jërëjëf jege na ay tuñ loolaay kon nag ak Baye jëf jël rek la Serigne Touba moom amul naxul kenn Cheikh Fall naxul kenn lu waay jëf mu jox la ko kon nag nun taalibe fii nu agsi yàlla sama moom dogal na accès bi nañ jéem xool ci kanam te xam ne yàlla suñu borom maa nga sam yore du jeex ku jëf mu jox la ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp man mi ak Moussa bi ñoom ñi ak ñi ni sama gannaaw fekk woon démb day fi doon ni képp ku fi teew sa xol sedd na ndax moom dafa war rëy ndax Baye Fall dafa yéeme sëñ Fallou Fall sëñ Moudou Fall dafa am lu ma sa wax lu ma fekke ñu jox ko addi ja si ngooña lañ joxe woon daaw ñu joxe ko ko ren mu ne Baye Fall du loolu donte day tege ñaar téeméer it day day jëm kanam waaye du arrière kon na ngeen jëf seen xel ci ne lu ñu def tey bu dee ne dañ da jëm def lu ko loolu mooy passé bi mooy ndigal li Baye Fall nag moom kilifa yëpp maase nañ ci ne bu nekkee ci ndigal bu ndigal jógee mu jëf def ca lam war a def xaar leen ndigal li feek ndigal ñëwaatul mi ngi ci kaaraange mi ngi ci lépp yoonu murid nag jëf jël la ñoo ngi ñaan yàlla sama borom teew ak ay doon yu bari lool ñaan sama borom ndigal kala fi mu yóotu fi mu jëm yàlla nga sama borom àggale lu kaw njortam man nag sama cant sant naa sëñ waaye maa ngi sant gën a sant eh, taalibe yi taalibe mag yi ndax fañ jàppoon métti woon lool waaye nag fi mu toll yi ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla sama borom a sant di gën liggéey sëñ Tuubaa Cheikh Rafal fu ñu toll ndigal nag bu jàllee leen na ngi ñëw dañ fas yéene jàpp téeméer loxo te xam ne liggéey doo tax a jariñu sëñ seen digal faalu mag nag moom